li ñu fas yéene def ñu ngi ciy waxtaan parce que Covid bi dafa bloqué woon lépp activité yëpp kenn doxatul woon léegi nag ñu ne ubbi nañ euh, classe d'examen yi pare nañ ñu ngi ci mais classe kii dinañ ubbi intermédiaire yi ñun ci lañ bokk ñun classe alphabétisation yi école communautaire de base ak classe passerelle ñu parce que ñun ñetti classe yooyu la ñu am donc ñun it ñu ngi ubbi novembre comme ñëpp ubbi boobu nag euh, ci lañ nekkoon ba nga xam ne semaine bi sax Euh, dañ ko naroon def ndànk-ndànk parce que il faut ñu respecter distance sa cérémonie naroon am mais nag président de la république dafa jóg taxaw ne gis na ne langue nationale ak alphabétisation bi il faut ñu jóg taxawu ko pour ñu mun a euh, réussir liggéey bi ñu nekk ci lutter contre le Covid. mu ne donc nañu def semaine boo xam ne semaine de sensibilisation lay doon ñu ngi ciy waxtaan ñetti fan yi yëpp si loolu la ñu nekk. li ñu nar a proposé, xam naa tourner autour de la sensibilisation autour de la communication sur la réponse du Covid 19. ñu utiliser suñu 22 langues yi nga xam ne codifié nañ ko bind ci ñu mun ci lire nit ñi comprendre mais ñu wax ko ci suñu 25 langues parce que Sénégal 25 langues la am nit ñi mun a comprendre fu ñu jëm ak naka lañ war def pour ñu mun a xeex mbir porter ay masques euh, raxas sa ba mu set. Euh, wala nga jël gel utiliser ko ba micro bi jóge sa loxo ba pare ñu respecter distanciation yi nit ñi ma bañ a nuyoo nit ñi bañ a def activité yoo xam ne rassemblement loolu defe naa bu ñu ko waxee ci làng yëpp fekk nit ñi fa ñu dëkk ñu wax leen ko defe naa ne dina am njëriñ lool ci lit bi dinañ nit ñi dinañ sentir ne alphabétisation jóg na pour jàpp ci